mooy métal yi nga xamante ni ñoo féete fii ci Touba mooy ñuy liggéey métal fer ak aluminium ak inox ñoo ñoo ñoo booloo àndandoo fa yéene liggéey sëriñ bi ci dëkk bi ci lañu taxawale kuréel googu dem Poroxaan siyaare ci sëñ bi mu jox leen tur woowu noonu la ah, ñi ngi ko taxawal ci euh, presque mën nañ ne 2019 ci la taxaw. waaw mën nañ ne loolu li ñu ko def mooy euh, dañuy ay ndaw juddoo ci dëkk bi yaroo fi. jàng fi métier suñ borom dogal ñu man fi métier amee fi tranga am lu war suñ diggante ak sëriñ bi dañ gis ne mag ñi baaxoo nekk ci dëkk yëpp dañu amoon benn bëgg-bëgg mooy mel na ñoom ndax dañoo amoon yéene fekkee gasam raay bi ak liggéey jumaa ji te fekke wuñ ko biñ dee ba nga xam ne dem ba suñu métier mokk nag ñu natt suñ bopp xam ne war nañoo am pas-pasu liggéey sëriñ Tuubaa naka lañ koy naka lañ koy liggéeyee nag ñu nekkoon ñun métier bi nga xam moom lañ suñu borom séddee ñu ciy tedd di ci yor suñu njaboot di ci jariñoo di ci jox addi sëriñ bi kon nag war nañoo jëlaat corps ci boobu delloo ci sëriñ bi njukkal loola moo tax ñu am yëg-yëg boobu nag ba dajale mbooloo mi parce que ni am fu ñu féete sëriñ bi ci dëkk bi loo xam ne war na diggante taalibe ak sëriñam loolu mooy passeport bi ak loolu mooy yëg-yëg bi amoon ci sëriñ ba loolu am waa tàmbali bi nag ñu ngi ko tàmbali ci première pas yi njëkk dox boobu kuréel bi muy taxaw dañoo fas yéene entretien que sëriñ Tuubaa ndax gis nañ ne que Serigne Touba yi at mu ne day laaj entretien yoo xam ne nii muy cellule yàqu yi ak verre yi toj ak porte yi am problème yi màggal jot lañ daan xool xool yabal fa benn ouvrier mu liggéey ko wala ñu xool kenn ci mbokki taalib yoo xam ne dëkku ci dëkk bi mu ñëw xool ko liggéey ko ñu def bëgg seen nag gan yooyu ganu sëriñ bi la te kenn ku nekk màggal tubaab bu dikkee dangay ngay defar sa kër ba mel ni war a mel ki waajal sa kër nag ki tax nga am kër war nga ko defal këram bala ngaa defal sa kër mm. loolu moo tax nag ñu amoon pas-pas bu màggal gi dikkee ñu entretien que sëriñ ba mel ni war a mel premier départ bi foofu lañ ko njëkk xalaatee waaye nag ci biir loolu avant ñuy tàmbali ko sëriñ bi dañoo njëkk a suñu xel xalaat ci jumaay sëriñ Tuubaa ji mu mel ni ki port yi nga xam ne sëriñ Abdoulaye moo ko defoon ndax ku ne xam ne ne porte yi muy porte entrée yi dafa am pois ñu koy tëj dañoo amoon jafe-jafe suñ koy tëj ñett ak ñeent ñoo koy yëkkati mu doon loo xam ne mënut a continuer ci dundu doomu aadama hmm. ci lañu njëkk a def ay démarches foofu dem fa laaj ndigal ci sëriñ bi mu jox ñu ko biñ ko joxee nag ci la daal di fas yéenee Euh, convoqué mbooloo mi yendu fa euh, wàcce porte yëpp defaraat ko ba xam ne kenn nit képp bu ko laalee mu mu dellu mel ni meloon. ci biir loolu it damaa nañ amaa nañ ay yeneen activité yu ñu defaat ci biir fu ci mel ne daari kaamil ji ne ci biir ak fi nga xam ne moom la euh, sëriñ bi jàngalee ci kaw xam-xam amoon na ay portes yoo xam dafa manqué woon. ak yenn gri yoo xam ne amu foon yi xidmatu xadim it moo ko taxawal defaraat ko ci liggéey bi nga xamante ni bokk na ci li njëkk a def ci wàllu woowu bi fa jógee nag tàmbanteeg màggal Touba ñëw bi màggal Touba ñëwet nag ñu jaayantewaat nag dugg ko sëriñ bi soññaat mbokki taalibe yi defaat benn euh, mbooloo moo xam ne ni dañoo dugg ci kër sëriñ Touba gi recensé lépp lu fi nekk ci wàllu yàqu muy appartement bu ne dañ fay dugg vérifié ko xool la fa ñu bind ko xool verre bu toj baak sell bu yàqu ba lépp ñu xool ko bi ñu ko calculé xam nu mu toll ñu woote réunion waxtaan ci suñu biir xamal leen ne que am na liggéey boo xamante ni mi ngi ci kër sëriñ bi te daayira xidmatu xadim moom la fay xaar ci leen defe bissi bi Euh, tasaare ko ci mboole membre yi nga xamante ñooy membre liggéey bi ñu xam som bi ñu toll ñu jël ko financé ko ci ba pare def ko addi sëriñ bi loolu Xidmatul Xadim bokk la ci jéego yi mu njëkk def bi ñu jógee foofu nag ñu xalaat ne murit du wàcc te lépp lu sëriñ bi moom jàpp na ne ñun ñoo ci war a jiitu ci entretien bi ci la ñu xalaat ne ginnaaw entretien pare na kon nañ jaajuwaat fas yéenee takkuwaat nag jëbaat ci yeneen liggéey muy fu mel ni ki buntu baaxee ndax ku ne xam na ne buntu baaxee ku ne gis na ni meloon fi mu nekk fi bunt bi fi mu tolloon jamono wees na foofu mu doon bunt boo xam ne nii ah, mën nañ ne meloon na melokaan woo xam ne nii ah dëgg la ci ab murid di métallique romb ko di ko xool bi ñu xoolee na xam ne que bunt bi laaj na yeesalaat ci lañ dem ci baaxu mi nga xamante ni moo yor liggéey boobu laaj ci digal mu xamal nañu kat lii nag dinañ ci waxtaan ñi nga xam ne moom lañ ci war waxtaanal yàlla dogal mu am ci digal wooñu nañu ko am ngeen ci digalu sëriñ bi mën ngeen ko tàmbali foofu it niñ ko defee mooy dañoo ñëw xool port bi li ko war a liggéey ñu xayma ko ci xaalis ni mu toll ñu woote assemblée générale waxtaan ak mbooloo mi xam ne leen digal jugaan na ci mi suñu kanam ci somme boobu moom la ñuy calculer kenn ku nekk ñu xam lañ ca war a joxe biñ ko jaayantee mu mat ab lim ñu defar ci liggéey buntu baaxee bi gis nañ ko defaree ñoo ko defar pentir ko karo ko ba nga xamante amaatul leen lu fa doomu aadama def. Hmm. kon loolu bokk na ci suñu activité. biñ fa jógee nag ñu xam ne ah, gisaat nañ beneen bunt muy fu mel ni ki daari kaamil muy fii ñu taxaw tey mu doon barab boo xamante ni bokk na ci denc mag ñi ko ni ko suñu saa waxee. Hmm. ci la ñu xalaat ne daari kaamil gis nañ ne. Finetri fi nekkoon ku la xam ne ne Finetri fi nekkoon 87 ba léegi yàgg na. Mm-hmm. àgg na te jamono weesu na foofu. Mm-hmm. tey kër dong boo fi gis ci Touba. yi fa nekk moom mi ngi ak jamono ñu ne kon ñunkat kat suñu liggéey war naa jëm daari mm-hmm. li doon yëngu-yëngu yi dëgg-dëgg nag bi ñu dikkee dañu gisoon ne dañ koy def entretien. mooy weeri toj ñu changé ko. nettoyé waat ko. seet looy am problème ñu dindi ko mais bi ñu dikkee immédiatement ci murid ak seenu xir ak bëgg sëriñ bi ak xam fi jamono toll ñu xam ne nag ko méngoowut ak fii jamono toll ci lañ jaajuwaat ne kat gis nañ ni am nañu digle entretien waaye ni ko sëñ maam Thierno waxee woon ci leeral bi mooy nañu fas yéenewaat nag soppi fenêtre yi bañ ko xoolee nag lii kat ab lim la waaye Serigne Touba ëpp na loolu mu toll ci 86 fenêtre kon 86 fenêtre ku la xam ne ab lim la waaye nag Serigne bi ëpp na loolu ci la ñu jaajuwaat nag wootaat assemblée générale xamal leen ne kat daare kaamil jot nañ digal ci Serigne bi ngir ñu war koo defar bi loolu amee nag ci lañ ko séddale ci murid yi kenn ku ne am loo warloo ak bi joxe ko ci lañ tàmbali liggéey mën nañ liggéey bi lépp liñ ko liggéey ak liñ ko laaj boo xoolee moto sa deux mois mm-hmm. te ku ne xam ne ay millions la waaye sëriñ bi ci boppam moo ko def ci ñun mm-hmm. ndax moo waajal suñuy patron mm-hmm. ñoom ñu waajal ñu bañ mën a am loo xamante mën nañ ko liggéey sëriñ bi waaye nag li ci gën a neexati mooy ci liggéey bi mooy dañ ko ànd ak suñuy kilifa yi nga xamante ni ñoo ñu jàngal métier def ci ñun xam-xam bi def ci ñun am am bi ba lii mën a am kon nag njàmbaare googu ak jom jooju moo dugg xoli murid rawatina rawatina ñii xidmatul xadim bañ mën a liggéey sëriñ bi toll nii kon daal lii mooy li nga xamante ni mooy suñu activités yi njëkk waaw euh, foofu euh, dinañ ci indi ay leeral tuuti ndax ku ne xam na ne yoonu murid dañ naan Touba moom fu ab murid nekk rek fa la dañ ne fu nekk rek fa la waaye nag ci biir loolu gis nañ ne daayira xidmatum pour l'instant dañoo nekkoon ci recensé mbooloo bi ndax ku ne xam na ne Touba dëkk la boo xam ne dafa jafee recensé ci mbooloo mi liggéey liggéey bi yëpp biir Touba la waa Touba rek ñoo ko liggéey am na ci ay benn benn yoo xam dañuy nekk Ndakaaru dégg ko yónnee seen adde ñu defal leen ko ci waaye nag jëmmi ñi nga xam ñoo adhéré wu Touba lañ ne loolu mooy mooy mooy liggéey bi waaw cest à loolu dafa bokk suñu règlement de liggéey règlement de daayira bi ñu taxawal mbooloo dañ ne daayira bi corps de moom la engagé képp koo xam ne ni menuiserie métallique nga ngay liggéey arminium wala inox wala fer yow yaay am carte de membre. liñ ci jublu mooy dañu bëgg chaque jour ñi moom suñu bopp ci li ñuy def. ndax lépp lu jógee sëriñ bi kenn ku nekk am na ci sañ-sañu di ko def. waaye nag daayira bu dee ak na muy doxee. soo gisee ñu ñu jël si engagement ne lépp loo xam ne ñu ngi koy liggéey jëm Mitali képp moo am droit participer ca wala moo am droit am ci carte membre loolu li ñu bëgg mooy sécuriser ba ëllëg képp koo xam ne boo ko ca métier moom doon na maa ci def sama dërëm. Mm. nag su sa addiya yaa xam muy dërëm muy ñaar dërëm boo jikkee ne joxe naa ko addi sëñ Tuubaa dañ la ko defal waaye nag jëmbi liggéey bi amul bailleur de fonds bu ñu financé amul commerçant bu ñu financé amul beneen corps de métier boo xam ne moo nekk suñu ginnaaw lépp lépp dafa tàmbalee ci métallique jëm ci métallique loolu mooy dëgg dëgg liggéey bi ni nga waxee mooy li jëm ci bitim réew it dëgg la am na ci ñoo xam ne nii ñi ngi demandé ngir bëgg liggéey bi egsi foofa mm-hmm. waaye nag comme dañoo ne ci Touba di recensé waa Touba te pareeguñu mm-hmm. suñu nee ba pare Touba ba bouclé ko ci la ñu commencé ne décentraliser liggéey bi ngir mu gën a génn ci yeneen mm-hmm. yeneen dëkk yi foofu la liggéey bi toll waa keneen ku bokkul ci Mitalik bëgg cee bam kooku ko la ñuy seq ak moom mi ngi mel na ñun ñi tey beneen corps de métier am lu muy yëngu ñu romb ko yor suñu àddina yóbbaale leen ma ko ci liggéey Sëñ Touba kenn ku nekk am nga ci droit waaye nag am nag ba am ci benn accès ba carte membre moo la koy defal te carte membre duñ ko jox kenn ku dul métallique ak muy liggéey métallique fer ak inox ak armignon mhm. loolu mooy dëgg-dëgg non journaliste moom am na sañ-sañu jaayante addi def ko waaye nag amul sañ-sañu am carte membre <laughs> waaw sama kàddu yi mujj mooy euh, sant mbooloo mi sant leen mhm. ñaan leen suñ boroom defal leen tax ndax mbir mi mënut ndox sans yéen mhm. ndax média dafa nekk loo xam dafa am solo ci liggéey te man nañ ne xidmatul xaddim dëgg la bi ginnaaw Ah, bu ñu sant sëriñ bi la ñuy njëkk sant moom mi def ci xel moom waaye yéen war nañ leen sant ndax mën nañ ne fu liggéey bi egg yéen a yéen a koy taaral yéen a koy melal noo xam ne fu mu bëgg egg mi ngi fay egg kon loolu war nañ cee sant di santaan membre bépp nag bokk ci daayira bi waaye nag di soññewaat ci li nga xamante ni mooy suñu diggante ci liggéey bi mu mel ne que xidmatu xadim nag yemul ci liggéey sëriñ bi rek am na yeneen objectif yoo xam ci kanam mu doon loo xam diggante nit ki ak nit ki la diggante métier ak métier mu doon ay liggéey yoo xam ne bu ñu fi jógee incha allah bëgg nañu war ay ensemble général yoo xam dañuy liggéey dañuy woote waxtaan ci li nga xamante ni moom lañ séq muy corps de métier ak yeneen démarche yoo xam ne war na ci diggante taalib ak moroom taalibeem yooyu daal bokk na ci nga xamante ni suñuy kàddu yu mujj la di ko bàyyiloo xel ñëpp di sant ñëpp nag sant gi nag di ko teg ci loxol président ñu jàllale ko ci porte-parole sëñ Mame Thierno Dioum ak sëñ Galas Mbow coordonnateur sëñ Baye Alès Sey sëñ Mass Mbow président organisateur sëñ mbay gasama ndax it membre de bureau yëpp bu ñu sañoon ñëpp lañ tudd sëñ Mbaye Niang sëñ Ibra Diassé su ko defee loolu day gën ndax it comme comité la boo xam ne nii mooy biro bi ah, ku ne xam ne liggéey bi dafa dañ koo tënk muy règlement bu ni daay di doxee ni la doxee ñëpp na ci sëñ Bara Dieng mi nga xam moo yor commissaire compte bi nag ak sëñ Abdoulaye Diop ñoom ak ñi nga xamante ni bokk nañ ci bureau bi yëpp rek ak trésorier si Cheikh Mor Diop ak mboole membre de bureau yëpp suñ bàcci mbeng kon daal eh, ñu ngi sant ñëpp ndax ñoom it mënu leen ñàkk sant ndax liggéey bu tollu fii bureau bi la kenn ku nekk place nga yor li ci a ndax binduñ benn emprunté patron lañ bind ñii fi nekk ñëpp responsable place la dañuy tëj seen place di jël seen gasoil di bàyyi seen yitte ngir sëriñ bi mm-hmm. kon ñu jërë jaajëfal leen mm-hmm. kon nag sant na leen bu baax ci liggéey bu am solo bi nga xam ne ah, liggéey nañ ko di ñaan si borom dafa leen tawfeex ak taysiir ci bàkk sëñ Tuubaa mm-hmm. ah? tur bi waaw Modou Mamoun Gueye secrétaire général Xidmatu Xadim ñu ngi gërëm ñëpp